iman yàlla ak yonenteem ñu ngi bind ci yonenteem yàlla ak i malaayika ñu ngi bind ci yonenteem yéen ñi ko gëm dana bind ci xam ngeen xas day lim làmboo ni jox ay bind bind ci yonente bi ak waxtaane yu baax ñi waxtaane Sëriñ Tuubaa ak waxtaane ñi tax nga xam Sëriñ Tuubaa muy waa kër Sëriñ Tuubaa yooyu nga xam xanaa di doon gànt ci jotaay bi ñu bokk koog suñuy kilifa sëriñ Xasan mi nga xam ne woyof waaye wàllu la ci wàllu mbooloo mi wàllu la ci ñoom Euh, toujours it ñuy yokk ci moom ci ak taalibe wax dëgg yàlla euh, am na ci mbégte lool am nañ ci mbégte lool ndax li Sëriñ Tuubaa andi ci yéen ñëpp ñu ko xamee lu yees loo xam ne ci la tegewaat yoonam yi mooy ak ak taalibe alxuraan ji lu mu ta ñàkk la ak yeneen des nga xam ne nag dafa mel ne moom la fekkoon jullit dem ba xawoon koo sobental ba mu tàmbali ñëw rëcc mooy ak taalibe moom la sëriñ bi yeesalaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax daf ne innamaa bu'istu li utammima makaarimal axlaaq suñu borom daf maa yónni ngir ma mottali si lenn bi gàddu ngay jikkoo jikkoo yu baax amoon na fi waaye dafa am lu ci manqué woon yonent bi nee na suñu borom daf maa ma xamalee farata yooyu waaye ngir ma mottali si eh, tedd ngay jikkoo yi la mu ñëwee ñëw. lu bari ci yéen xam ngeen sóoratul Fatiha mooy aaya bi eh, saa yu tolloo ak 49 aaya yi njëkk rek ci suñu su njëkk si gis ngeen fii li ëpp ci jaayante yi ñoo ko suñu borom waxee wala sax inna Allaha shtaraa minal mu'miniina mi ngi ci sóoratu Tawba mi ngi ci sóoratu Tawba eh, mooy aaya mooy saaru ba tey neuf booy tomb ci ci booy compter yi gis ngeen suñu borom daal cee leeral dëgg la nag suñu borom leeral na jëlal mooy jaayante. toujours lañu koy wax xam ngeen jaayante dafa am ñeenti mbir yu mu laaj ñu ko wax daf ne inna allaha stara xam ne mooy faaw mu am nit kuy jaay faaw mu am nit ku taxaw bëgg a jënd kii jaay faaw mu yore lu muy jaay kii jënd faaw mu yor nit ku mu bëgg jënd yàlla daal wane ci aaya bi ne inna allaha naan yàlla mooy kii jaay li mu yor ko jaay mooy àjjana eh, kii ñëw di jënd si ñu ne mooy ab jullit li mu yor ngir bëgg koo jëndee yàlla ne moom lay jaay àjjana ji nag yàlla da ngay ànd bu sax mu doon waa dama am bu rek daanaka sa bakkan doo sa waaw léegi nag la mu taxaw taxawaayu sa borom jaarul sa borom bëgg jënd ci moom àjjana eh, eh, bëgg moom kii jaay li mu lay jaay mooy àjjana moom nga la warul ki mu ko warlul nag. ñun ñi mu joxe ñu bëgg ko jënd àjjana mooy bakkanam ak alalam ndax jël nañu suñu bakkan ak suñu alal la jëndaan ndax ko sëriñ Baba jël loolu mooy li taalibe bi war a di nekk laaj bu am solo boo xam ne war na koy laaj boppam toujours ak fan la ca toll sëriñ bi dee wax ci masaalik toujours di fàttali nit ki naan wax leen bi ànd na bi ànd na sayra lil mari sarix faraqiban ahwala mawtin yaa mutiix mu ne nit ki dafa war a xam ne ab doxam ci àdduna di su gàtt la ca dox bi dafa gaaw lool ndax bi nga ganee àdduna danga toog diir bu yàgg boo xam ne doo dara diir su gàtt nga fii man boo guddee aw fan it danga amaat diir diir boo xam ne doo a dara diir boobu ngay am doole nag danga war a bàyyi xel ne li nga xam ne moom nga warloog sëñ bi ndax xam nga nit bi bu fekkee ne eh, juróom-ñett at nga dund wala juróom-ñeent fukki at ndax juróom-ñeent fukki at ci ab jullit mooy ku gudd fan ku am juróom-ñeent fukki at rek juróom-ñaar fukki at sax boo ko amee yonent bi alayhi salaatu salaam juróom-benn fukki at juróom-ñaar fukki at juróom-ñaar fukki ak juróom loolu mooy dund lépp ci waxeetam ku ko weesu rek gudd fan bu fekkee ne li nga def ci lu baax donte juróom-ñett fukki at yëpp sax da nga ko doon jàmm yàlla lu ko def lu baax boo tuddaatee juróom-ñett fukki at rek boo muy tuur li nga defoon ci lu baax lay daal di jeexaat kon bu fekkee ne bàyyi woo fi loo xam ne boo demee ba juróom-ñett fukki at loolu mën na lay fekk fekk fa nga nekk daanaka kon da nga naan li nga jotoon def ci lu baax fayal di juróom-ñett fukki at yi nga ko ba mu jeex lan loo xam ne la waaye dana na fee loo xam ne ba fii looloo ngi am fekk fu mu mën nekk loolu bokk na ci taxawal bu baax mu mel ne jotaay yi ñuy def bu fekkee bokk nga ci ñi sosoon daayira exemple daayira Barcelone wala daayira nangam wala leneen wala bàyyi nga comme ni ko nit waxee bàyyi fi doom yu baax ñu la ñaanal sos lu baax fii ak am day am bu cee jugee dina fekk fa nga nekk mi ngi mel ne ñu ngi laajal ni ñu ko waxee ci tabax jumaa ñu ngi laajal jumaa ji ne jumaa jii kat milliard moo koy defar nga joxe ci benn dërëm dërëm ba complété milliard bi ëllëg yow ma xiyaam bu ñëpp toogee dañuy dañuy yëkkati jumaa ji daan ne diw ñëpp xool la ñu ne la jumaa ji nga tabaxoon sa borom a ngi nii jumaa ju mag lañ lay fay ndax benn ba nga defoon xam ne ñu ko la des bu ko defee nag ku ca jaamu yàlla ku ca sujjóot ba yow ma xiyaam da lay fekk foo mën di nekk kon nit ki xamul kañ lay faatu moo tax sëñ bi rek ci ne lam tadri hal anta ma al atwaari fawqa safa xafin halaakin xaari xamoo xamoo kañ la la faa koy dikkal ci na nga jàpp ne yaa ngi mel ni ku toog ci bindub teen boo xam ne day gàll ko te daanaka gàll ko ne ci yow ba pare te bu gaawee ko li muy tekki mooy dana yóbbaale ji biir nga daal di am ko daal di faatu te loolu mën naa ñëw waxtu nekk kon nag am na bataalatu wa tadyiul umr bi xayri ma yaani fadaauhu yadur loxoy neen ak di sànq sa dund ci loo xam ne amul la njariñ ak julli ci waru gaawaat ne ab taalibi ndax taalibi moom xam ngeen ko mooy julli pilis

دعنا نقلهم بخدمة بعض وبتي لغة عربية لأن كنت بقوا معي بقوا سببيا بقوا سببيا ما نم بخدمة تسبب وفاجئ لك لأجلك لك أمرك سخت لدرجة تسبب لجي لجي سرير دولار بخدمة تسبب لجي أو بحب ولا سبب بك أو هدية ولا سبب لها أدية تبقى من الثانية تبقى نك من قبل

aziyaatihi fastaqilahu bil ars na nga xam ne li gën a cher ci ni nit ki am mooy waxtu bi nga xam ne mi ngi koy dund ci ëllëg yow ma koy am kat nit ki bu xasee ba faatu dañ dugal ko ci bàmmeelam lépp di ibaadaat yi nga def dañ ko ko laaj ab dërëm bi nga joxoon seen yàlla rek lañ lay laaj lawlaa axartanii ilaa ajalin qariibin fa asaddaqa wa akun mina saalihiin loolu alxuraan wax ak a neexoon sama borom nga bàyyiwaat ma tuuti ma delluwaat àdduna ba saraxee tuuti doonte ab centime la ma dox ko ngir sa jëmm ngir mu mën a yokk lu baax la ngay fekkee da ngaa yore lu baax da ngay xeeb loolu nag xam nga ne boo joxe waat na ab centime sa lu baax dañ la yokk rawatina nag kon ki nga xam ne ab yàlla ñu jàll musal mën naa yore ab sabar mën naa yore ab sabar euh, loolu kon yow muy dund toujours lijjanti sa diggante maanaam fexeel ba di lijjanti ci sëriñ bi bët lii tax booy faatu sëriñ bi mën la accepté ba yóbbaale la waaye rek. ñoom ñëpp taalibe Serigne Touba moom lañ ku aji ci Serigne Touba la Serigne Ba wax lu wér la dañuy xeeb suñu bopp ak murit nit tasawuf mooy nit koo xam ne dangay doy dal sa bopp lépp lu ñuy wax ci sikk nga jàpp ne yow la xëy boo demee nag ba jàpp ne lépp lu ñuy wax ak sikk ci kanam la lu ñuy wax ci lu baax yow la war a doon loolu aaw jëf yoonu ab taalibe nekk ci jëf ak ci bañ a ndàmm boo ak ci chaque jour ma koy wax fii eh, léeg-léegi ca dëkk bu sell ba Tuubaa fekk fa ay jàng diine ba mokkal ko lool mokkal alxuraan jàng diine ba génn sax yokk seen dali ba say daane am si ñoom taxe ba ñëwee ñu jàpp ne li ñu woon sëñ bi sëriñ bi di ko jàngale ci bi léegi am nañ leneen ñu ko gën kooku ci lu baax la nekkoon doon tuddoo sëriñ bi baax bi baax jëbbul woon la bu doon ko xas moom mënut moom dara waaye sëñ bi kii sëñ bi sëriñ bi baax say daane moom ci moom loolu ak ëpp la tax seetaan seetaan jël noonu ngay gisee koo xam ne dafa yées loolu loo ñëw ñëw dékklee nga romb koo xam ne sëriñ Tuubaa day day tuddoo mais lépp lu suñ xam na ne léegi suñ borom lu ko araamal nga gis ko ci sëriñ Tuubaa day kooku seetaan yi am na ci moom yoon ñaar yooyu yëpp kon bu ñuy ëppal nañ fexe ba bu ñu yéesi bu ñu ëppal bu ñu yéesi suñu sëriñ si ay exemple yu mag a mag ne ak taalibe mooy li sëriñ Tuubaa andi ak taalibe mooy li mën a jëriñ nit ci nit bu ci nekkee nag da nga tuumaal sa bopp ak jàpp ne chaque jour xeebal li ngay def jàpp ne da war a nekk ci yoon yi ñu yokk loolu mooy jikko yi xamoon ci jamono sëriñ bi boo ci nekkee sa yoon ndax xam ne moom ngay moo ko gën a gàtt ci wax na ko ci ñaari biir ñun boppam ak suñu bàmmeel nga fexe ba li tubaay waaye du waaye bul fa ji ma fekk taalibe gi nga jàppoon na yow mooy ak taalibe sëñ Tuubaa dangaa gane àdduna fekk ko mu jógee ñu yëngatu ci téere yi léeg-léeg yi nga xam ne sax des koo mën a dégg dégg ëpp ci xam ne da ko ñor loolu day bind baat yooyu ngir sens yu bari muy am moo tax lu laaj orienté wat defar na ay nit sëñ Tuubaa bi mu fiy jógee dafa defar ay nit li mu bëggoon a defar fii mu ak sa tay ñu ñu koy dundal barkeel bi ñu jot tay bi fi sëriñ bi jogé ta suñu bor suñu borom xamaloon na ko ne ko ci ta bi mu fi nekk mën na am lool lu ko fekké fekkeegul lepp tax mu defar ay nit bind ay téré yi ñuy gàggante ko do do leena bàyyi lepp lu ñu xamee tey mbirum sëriñ Tuubaa mënees na wax ne bàyyi ko ay nit ñu defaroon dafi bàyyi ñuy niir téere yi xam ne ñu ngi bëgg-bëgg Sëriñ Tuubaa ñu théoriser njàngaleem Sëriñ Tuubaa ba mbir mi accès nii bi mu accès ci ñun nag rek waaye bu ñu ko mënta jàllale nañu fexe ba téye ko ba ki ko war a jëlaat ci suñu ginnaaw fekk ko ni ñu ko suñu ko ci kanam ñu ngi ci jafe-jafe téye téye ko sàmm ko ba ki war a ñëw fekkaat ko fi mu nekk sax ñu ngi ciy bëgg am jafe-jafe loolu nag mbir mu yéeme ca bu ñu góorgóorluwul nañu tuumaal suñu bopp jàpp ne dañuy dal bu ko defee rek yàlla mën nañu musal ci loolu yàlla mën nañu musal ci loolu mën ngeen cee joxe ay tegtal yu bari jumaay Tuubaa ji ñu ngi ko fondé 1932 bëgg ko sëriñ Tuubaa lool waaye ginnaaw sëriñ sëriñ bi ngi fi jigéey 27 32 lañu ko fondé kii xalaat naan dégg naa ne fondé woon ne jumaa ci jamonoy sëriñ Tuubaa mooy jullikaayu tay bi waaye jumaay sëriñ Tuubaa ji moom 1932 lañu ko fondé te ci bëgg ko sëriñ Tuubaa gi ñu fi bàyyi ñu fi bàyyi ci ñi ko defit dañoo xam ne parce que bëggu si bi la rek ñu dox ci diir si gàtt suñu borom daal di xàll yoon mu ñëw euh, malgré que loolu xam ne tubaab bi bindoon nañu kenn mënul ci moom dara waaye nag bu fi jógee li mu yoree amul kenn ku ko mën a waxal ci ñi ñi ñee ko toppoon daf koy wegg ci seen jëf màggalu Tuubaa gi ñu gën a xamee Tuubaa màggal la fi sëriñ Tuubaa bàyyi waaye màggalu Tuubaa seen fàlloo ko njëkk a parce que dañuy defaree day tegtal yu bëree bëri daal dafa mën a andi ci effort yi ci suñu Fapal def ci jamono yooyu ñu waajuram suñu borom yokk seen yaar dëkk bii di Touba yi comme nañ ko ay Touba ay sëg la ko murid di jàppe woon bu ab taalibe bi faatoo ñu yàlla ko yóbbu ba mu ngi ko defee ba fii sax bu faatoo rek ñu yóbbu Touba waaye ñu bari jàpp ñu bon ab dëkk boo xam ne dañ fay dëkk sëñ Abdou Lahad gis ne sëñ Tuubaa kan Madina la wax Madina mooy tekki wiir Tuubaa mi ngi doog a nekk commune ñu ngi koy doog jàpp commune chef du village comme commune bu nii daaw la xam daaw yéen dañ koy doog jàppee moom lay doog a nekk am commune bu bu ñu kii sëriñ bi bind yàgg na lool dañu fee fekk sëriñ bi dox ci ab diir bu gàtt suñu borom daal koy ci sëriñ Tuubaa kat li dox di ñëw fii bi lépp luy jaarwaay ci saa yi da jaar demoon na sax ba dem jàngee bi yëpp ba soobu ci yoonu tasawu ni ñuy ni ko euh, ñaari gars yi day seeni mbir mat naa xalaat bi lu baax fu mu toll ak ki lu baax di wut di wane ab ak ab bi nga ak ak bi nga xam ne moom mooy àggale nit ñaari ñooñu lay lay yi ñaari gars yi day seeni mbir naa xalaat kuy wut lu baax fu mu toll ak ki lu baax di wut daan na wut lu baax ngën gi murit la bu eggagul ki lu baax di wut ngën gi murit la bu daw baax fii yaa ngi nag jàpp sa bopp ak taalibe jàppal da wut lu baax foo ko fekk rek def ko Sëriñ ci saa yi moom ko jaaree moom ngeen dégg ci histoire biographie sëñ bi ñaan la am na ñuy dund sax ñu jàppoon sëriñ dem ba jàpp suñu borom ko ne na ñooñu mu jàpp ko borom tarixa yi ba tudd leen da lépp contexte la ndax wax naa leen ne man gisaguma sax ku Sëriñ Tuubaa imam Ghazali yi mbirum baat baat yi ñu ne foofu fonk ci amul nawar yi rek la tudd wàllu baat yi léeg-léeg ñu ñu delloo Serigne Touba loo xam ne bëggatu ko weesu na te léegi ñuy mel Serigne Touba ci tolluwaayam bi mu jugee géej géej gi nga xam ne mooy daraja bi mujj daraja sukkur bi mu ci tollee ba pare bu ñuy leeral jamono yooyu martabaam ci wàllu tasawuf ba kii joxe exemple imam Ghazali wala keneen boo xoolee tarjuma imam Ghazali rek xam ne sëñ bi weesu na foofu loolu ay tolluwaay loolu ci sëñ bi faaw ñuy xam contexte yi li sëriñ bi tolloon ndax dañuy tuddee ak sira ci addis yi ñu ko ciy xam ba yàlla def mu dem ci géej gi dem ba mujj weesu ñoo ñëpp wane ne suñu borom jox na ko li mu joxoon ñi ñëpp ñëw na ci moom dem ba ci yàgg mu am séparation ak ñoom ba weesu leen suñu borom bàyyiloo ko lépp lu wér mu tegaat bët saxaaba yi dem ba ci yàgg mu ne mel naa ne kenn ci ñoom anas mi ci gënoon na siiw dem ba ci yàgg sax mu ne far naa jéggi anas jaawas ko anas yëpp xam ngeen daal di continuer rek mais taxul mu daal yi mu jural ko lu nekk nag xusóor ya xallat wal ahlu anni tafarraxat li madhi ladi anhu madihu xasiru li ci gën a yéeme mooy al madihu xasiru waaye sëñ bi tag yonent bi alayhi salaatu salaam mi ngi ko jural lépp moo ko jural loolu mu lim lépp nee na xusóor ya xallat samay njiit yi ak samay pale lépp wéet na tas na wal ahlu anni tafarraxat sama waa kër yi ñëpp ak tasaara lañ leen jurut ma kenn man rek te li ko jur mooy li batti les gens Madiou Razine ngir tàgge ki nga xam ne ba léegi aji gàttañ ñu laa ci ni ma ko bëgg a tàgge ba léegi ni ma ko bëgg a tàgge dafa guma ci dara ki nga tàgg bam jural la ñu yëpp tey wax dëgg yàlla ne si war tàgg naa wax dëgg yàlla bu doon kanam ma mënoon lépp def naa ko ngay wax waaw soobu waaye léegi da gis ab murit bu mel ne man jébbalu tey Moussa mu ngi bëgg a yore dara yi naan la ba marché bëgg ne léegi àgg naa ci sañ-sañ ba mu yore demal jàngi histoire bu marché bi bu ñuy tolloolee suñu bopp ak ab murit dañuy fekk boppam ak bu wéy jàpp ne dooragoo toujours di xool ne yii yaari gars yi ma wax kuy loola kuy wuti lu baax ak ki dem baraw bokkuñu ab murit ak sëriñ bokkuñu. ñi jaay jaay day day seeni mbir mën naa xalaat kuy wut lu baax fu mu toll ak ci lu baax di ak ci lu baax di kii wut lu baax ngën gi murit la bu eggagul yow mi wut ñoom ñooñee ngën la bu kaw baax weesu na foofu lekk yow nag jëpp lu si ne tey ab taalibe bëgg ne suba yaa moom yéen a tolloo martaba loolu lu jibbay ab murit man maa ngi jëpp loolu nag sama yow day xaw a dëgër sax dana xaw

loolu it li tax ñu ñëwee ji mooy ni yàlla defee ñu agsi keroog ma dégg sëñ bi wax wax bu am solo boo xam ne ñun ñëpp war nañ koy bàyyi xel baag yi ci sax ne mu leen waxu dëgg war naa sëriñ Tuubaa war naa sëriñ loolu nag ñun ñëpp la war ak toujours nañu xam ne ab sëriñ bi ñu war a am jëm sëriñ Tuubaa di gën dem ak ki koy war maal du mbiru xaritoo du mbiru àdduna mbiru suñu borom la booy dox ci diggante nit kee boromam da nga xool noo koy taxawee ak noo koy toogee da nga xam noo koy toogee ak noo koy taxawee ndax ab murit laa kat aw sas la aw sas la euh, ab ab yam bu diis a diis la bu ñu xoolee ci sëriñ sii rek nga xam ne seeni at am na ci ñoo xam ne fii seen seen xasan seen maam lay doon lépp ci jataay bi seen seen bàyyi lay doon ak jataayam bi nii mu toogee ni muy jàngee loolu mooy ak taalibe bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne moom la ko suñu borom yónni ngir ñu bëgg koo ñëw di ko di ko di ko eggale di tuddoo ku baax ba pare loolu feeñ ci yow loolu nañ koy moytu mbokk yi nañ koy moytu bu baax a baax te xam ne lépp lu ñuy joxe ñun suñu cër ma nga ëllëg àjjana barkeb Sëriñ Tuubaa bii nag tàmbali ak si ñoom kenn mënu ci ba nga xam ne perte mën na ji am ak leneen Sëriñ Tuubaa moom boo koy liggéey di sellal bu barke bi xasee ba ñëw duñ set day yokk Sëriñ Tuubaa moo wax loolu moom barke barke bi sahaadati bi bi bi xay bi mag fi leen tartar bes sama pexe ci lu ay pexe mais kenn mënu ci ay pexe nag may waxee toujours sungoo sangoo sungu bu bën mënu ko indi ak na leen ngay tooñ ni sangoo sungu bu bën wala yooyu mënu ko indi lépp nag ci sell ak ak sell rek leeram ci yoonu sëñ Tuubaa yi bu ci xasee ba ñëw nag wa umri ilal jinaani iidu iid day doon boo xam ne dafa tàmbali ca bul bala mu laa bàyyi dugal mbir bu set day gën di yokk loolu ñëpp xam nañ ko ci ñun bokk te ay pexe dara di di rey li mag euh, euh, samay samay la ji bi xëy na samay dara ja ci ay pexe ci la ñu dégg waaw euh, yéen nag ñi ngi leen di ñi am ci yéen bu baax a baax ndax ñoo ba fii wax sëñ bi sax ne ko suñu mbay na ñi imposé tubaab yi pour proposé ndax lañ fa loolu imposé na euh, salle boo xam ne euh, prix de 60 pour cent 70 pour cent nga nekk ci salle dañ doon rémunérer dañoo imposé leen Serigne Touba ñu toog dëgg ñu ba force liggéey bu liggéey bu rëy la liggéey bu rëy la ca euh, bërëb yii ngeen koy defee fàttaliku leen ne lépp lu fi am ci ab saxaan rek Serigne Touba saxaan bu mel noonu loolu la ko dund ci tubaab yi wax na ko lam yarhuni indal buxuuri muxrixaat daaxin li xamrin aw dawaaxin faasixaat ba ma nekkee ci géej gi muy fuude nankati sàngara yooyu ma waroon ak soxla yu kàccoor yi mosuñu ma fab ngeen ñëw ci waxtu yi nga xam ne am na seen mbokk talib yoo xam ne suñu tubaab yi boo demoon yaa waaye fa ñu li ngeen def de waxtu yi ngeen bàyyi seen yitte dañoo fii am na ñoo xam ne ku doon seetaan football rek la muy daggee dee ba pour man dem ci stade yow doo ko dépensé fii am na kuy dépensé lu ëpp li ngay dépensé ci lan koy def xam nañu du ko jariñ fii li ëpp ci li ñu fiy dépensé du mat loolu du mat sax daanaka dee ba te ni yàq sa temps la yàq sa temps bàyyi nga loolu lépp te jëmi Sëriñ Tuubaa lu dëgër na dafa maa laa bëgg yu bàyyi ko suñu faatu fekk ñu ci yoon mel nii la koy may nag mooy bañ di naw suñu bopp dañuy xeeb suñu bopp yore suñu kilifa yi di dëgëral loolu ndax Sëriñ Tuubaa loolu la la neena moo nii def dama war a muxrixaat daa ngi di xam ne kon ñu ngi sant bu baax euh, waxtu bi dafa tàmbalee guddi te sëriñ bi jotaay mag moo li may soññi sama bopp di ko soññi ñëpp rek ñu ci ak taalibe dañuy góorgóorlu ci ak taalibe ak taalibe nag mooy lu ñu ak taal bi nag mooy ni ko sëriñ bi waxee rek ñun nag li ñu war mooy li ma koy waxee sëriñ bi toujours ku nekk ci ñun sànq sëriñ Tuubaa defaroon fa mu ko féetale woon mu fay aare foofu yoon bi foofu war a nekk ñoom ñii de ñëpp xam nañ ne eh, fii ñu nekk fii ñu fii ñu fi sëriñ Tuubaa seetloon sëriñ ba man dañ ko lool ñuy dañuy jiim rek wala sëriñ Tuubaa féetale woon sëriñ Xamsatu ñu fay góorgóorlu yi nekk fa rek eh, bu fa ab taalibe bi soxlaa dara bu fa ñëwee ah euh, bu ñëwee kat xam ne donte mënuñoo mel ne moom it ñu ngi góorgóorlu ci côté boobu euh, la ñuy tawaat ñu koy sa diggante moom. ñun nag foofu lañ dëkk liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax fële Sëriñ Tuubaa liggéeyaloo woon Sëriñ Amsatu yi jël seen i jox leen ñun ci boobu ci lañ nekk muy gën a dimanche yooyu dañoo wuute day ku mel ne man jaar daal di wax daal di aar taalibe yi fa Sëriñ Tuubaa aar la woon maamoon ci taalibe keneen daal di fi jaaraate daal di ñëwaat fa maam ma féete woon rek aaraat taalibe yi ci côté boobu sëriñ bi aar woon bu waaye ku mu doon ci ñun lépp sa la nag lépp nga war a aar ci fan li ñu ko a gën daal di jàpp leen loolu bu ñu ko defee rek bu eh, ndax wax dëgg yàlla dañuy am sax kersa bu ñu amee borom xam-xam mag yu mel nii yu mel ne sëriñ bi nga xam ne mënoon nañoo jëriñ lool mënoon nañoo gën a jariñ donte mi ngi ñuy jariñ bi mënoon nañoo gën a jariñ bu ñu xamoon seen bu ñu xamoon seen gëdd bu ñu delluwoon ci histoire yi ñu delluwoon ci ñu delluwoon ci histoire bi ñu ñu bari xam nañ ko a a bu baax a ñu ngi jéglu baax nag ci kàddu yi ñaan suñu borom def ko mu bokk ci jotaay yi mu gën a gërëm loo lépp lu fi wax ci lu jub yàlla ñu boole ci yi lépp lu ñu fi wax ci ab safaane lu baax rek laa ci jubloo ci biir may wax lu baax nag seen mën ñu waaye nag ñu ngi koy waxee toujours mais dinañ sóoratu Nisaa waaye 79 suñu borom dañuy wax yéen a ne ko maa asaabaka min xasanatin fa min Allah wa maa asaabaka min sayyi'atin fa min nafsik ba wanee lu baax mooy lu baax li jógee ci yàlla jaar ci yow mu wanee ab safaan nag sa jikkee doomu adama rek lay jógee kon keneen du nga xam ne foofu la jógee rek waaye lu baax li ñu wane nag muy njàngale Sëñ Tuubaa ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom mu guddal seen fan sëñ bi ba seen yéene ji liggéeyam sëriñ Tuubaa bi yéen a ko àggale ba fi mu mën a jëm wa aaxiru da'waanaa an alhamdulillaahi rabbil aalamiin yaa rabbi ja'alnii muriidan maa bi iznika al-'aziim wa sammat maa jërë ngeen jëf